xam naa ni man laa ji woon it saxul lu bon laa ji woon ak lu baaxul bonul te tey maa ngi sax lay tiraangaa ki fal ku ni sangam da koy jàpp rey mu farakal ko aw tund may koy alal dafay sant bég mbég mu ànd ak ngërëm te far mel ni ab tóole mbaateb géwél lu dul jóg jaaraama tey aw ndigal di farloo ko waaxoo ko daw jékkatul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 kuréeroon ku deewoon ku taalam fayan kamaj rekk laa wan bee ma wal ba maa ngi fay na may sant gi may xarit yow waxal ma wax yàlla tey jii akub yonnenam ñu santal ma saa sang bii may bégal dama bonte soofante xol ba dee te moo tax ba ma ma baaxit te saf sàpputal dama bonte soofante xol ba dee te moo tax ma baaxit te saf sàpputal dama dikk def kenn koo xam ni kii xamul lëf mënul lëf mu jóg fam ma ba maa ngi ni dell ak ngëneel ak ngërëm te def kenn tey nag ku wecci kuréel gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saaxel dajul gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saaxel dajul xarit nit ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te kenn mën la tee ñuy gore dee ka jëw dañuy lekk say yëf di wax say ayib defal leen yiw rekk ngir yàlla yow fajal leeni lor faw tey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seenu yiw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoon mag nga ñaayam te des nag taxaw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoom ak nga ñaayam te des nag taxaw sa xol bii bu muy war waree kay wañax ngirub jëw muñal ndax payu yàlla ñëw ku far jàpp far muñ ba jot ci payam ña koy noonu xëy bon mu xëy féete kaw njegam yàlla mi boole nit ñépp def lañuy dox di mooy lub laram deeti daw ku toppul boroomam du toppub kemam ku nar ñépp nangul ko moo gën di ndaw bayal rekk saw sas ku wàccu sasam la muy def ci boppam laxal seetalaw la lay war ci nit ñépp yow dee ko def te far fàtte mboolem la war nit ci yow ku yàllay defar loo njabootam ngi kët dangay muñ ni suus nga gis ñépp aw muñal yow te sellal sa jëf kon nga am pay gi yàlla far gën ña lay dox di jëw xarit dëgg bul gàddu tànk nit ku gàddul nitub tànk gàdduy loram xarit dëgg bul leb te bul leb leyit lebeg leble tey jii du may kenn ngërëm ku ñëw leb la say yëf ba fay jot fayul dafay yàq sab der nga yàqub deram te koo leb ba fay jot fayu kooka yit mu far deñ ci say mbir nga deñ ciy mbiram bàyyil nit ña ak seeni yëf sa yëf ba faf doy wëllis ku ne kiy yëfam liggéeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jàmbat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xëy tëdd kookee yorul am xelam lu bon bon na ngay xëy di def faw lëf lu faj soxla bul féetewoo lekku ñam sa bakkan sa bakkan moyul dib gangal gangal kollu baa diw sasam dib cëram amal lëf ci as fulla am as njëriñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp a gën féete woo xoole cam njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy wax lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soññ soññit ñuy saxar mbaa ñi fay kuy def jëret saytaane ñëw fay kooti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxu wañax cay lii kërey mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rekk a des soññee ka yeetee xulew nit wéy na daal nit ñépp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngookub xam-xamam dafa lottu daal koo ciy fexee tere jëf ju bon mbaa wax ju bon ma nga lay fexee noonoo ko bañ lii xam ko daal koo ciy fexee yóbboo ko wan fañ a jub awan nga lay fexee tegee ko foñ tey miccu daal lii nag njegam moo am la gën na nga yow faf wa ci seeni mbir tey waaxu daal nëbbul tewey noppil tewey jàppul tewey farlul tewey santal te daw tey muslu daal nun ñépp yàlla nan yàlla may mucc njariñ faw ak ak pal gudul dañ mukk daal mbokk ak murit ak jaambur ak koo man di gis buy dem demal buy jekk it ngay ñukk daal kenn réeratul tey ngir ma ñépp a ko xam bu wér koo gis demul dafa jox mbiram saytaane daal kuy bañ digal saytaane moo saytuy mbiram saytaane nag ku saytu mat nay wattu daal lii tax dawal lii tax moyul lii tax bàyyil ñépp ak lañuy def tey fexee raw faw daal ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar tey daw lu dul sab sang wax ji ngëb ko daal bul woote nit bul soññi nit bul xot ba nit weel ak sa bopp ak waa daw ni la ñabbu daal bul wooti nit bul soññ nit bul xutba nit weel ak sa bopp ak waa daw ni la ñabb daal kenn dootu gis may wax ku dul saa bopp lëf lu ma deeti wax saa boppa tax xam naa ni daal lu ma deeti wax lu ma deeti def saa boppa tax nit ñi ma gis jëruñoo ti coow ak coona daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may liggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal kuy bon na bon kuy jum na jublu ci mën di am mën may liggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm koo gis da koy bëgga kay teeroo ka sànni yëfam te xel wa muy dawa tax xel wee ko may li mu am te day tëdd fib gaaram du yóbbu du dem kenn dootu gis lu mu am kenn dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa bopp a fi yam xëy tëdd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñ it baaxul ci am muritam farlul ku am taxe sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo loola rëcc ko dem foo yam ñu fa te boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu wàccul ka kay du wàcc ñu ñam aasana laahu ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamooti doo ka ko gëm doy loo sëriñ bile wëllis jaamu yàlla te doo doy njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nun nun itam nuy raasa kay wut ci moom lëf na am te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am nu am li nuy raasa kay wut lépp boo gërëm wax jaa ngi nii matte wax ji doy na ñépp xalam ku yora xelam na xelam am xel du faj lu xalam wax jaa ngi nii mat te wax ji doy na ñépp xalam ku yora xelam na xelam am xel du faj lu xalam sunu xarit yow xaral musles ci say yëfati jox nooti aajo na nuy yëf dolli nuy yëfati doo ñàkk mukk sawaayit faw muy ami yëf la rembatal bënn gaatee mband yaa dëyati dunoo ki ba nuy fellax di fees ak fël tey fuura dox di baawaan ak sunuy mayati ba naatawit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëw ndamati yaa tëdd may nub taraawoo fawwu def nu ko nuy sow di fees feesal ñépp a sa xëy ca may yalu dootul jeeni xërr fi nun yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo kun njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jépp doole ku ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëf yiw ak wërsëg ak jàmm koom ak lu dee fi wuti yal nay tiraanga ndimmal jopp buur a ki mbég ànd ak njariñ yu amul ab àpp faf ñëwati walluk yiw ak mbég gu seddu xol gu bette saf gu àndul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum nee na bon bu ko def ku jàpp dàgg juréy joo xam ni ñépp a ca xaj ni xër dellu di xaaraanee ka ñàkk ka dof bul mooy te tudd kuy mooy bul waxul moyam it noppil ci kuy mooy moyam yéppit nga noppi ca fa bàyyil lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ca moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit fi saalu waral mboolem jëfam jani ëf man xaw ma ñam woo musul sax ca ta xëri bés mooy góomayul bu ca jekki ngal ngalee ka suruf jaambur bu mooy defaluf jaambur ca mooy gamu mooy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmm sa yëpp lu jar mu deeti bokk gaaya mooy lori mooy ñam woo dara man ngaa ñàkk a wax la ca sax jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg-yàgg ku tooñul mucc yàlla du kaf xamal ni yàlla du nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca dee lor ñàkkati laf tuubal te sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nara def jumaa ji ban ba digal mboolem ñoñam sog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ba digal sog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem bul def ku cay dem di wax aslëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caa demit yi yaari yëf duñu ndam bu ñee ka cay dem a kay xas jépp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yal na wedam dem caa rafet yal na nuy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy soowa kay gajadam lawar ci nun lépp biir ak biti yal na nu cay sax dakk faw teraw kuy woolor ak xadadam bul ñedduloo buuratis ndab ngir yeyoona lu dul ñeddas ndabal ni gu des tuubal te réccu bu gaaw ñeddal ndabam latte bañ koo ñeddulooti sa ndab loo man di def bu la woo sànnil te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajeetee yow dalal di falang sa soxla daw jëm ca soxlaa mag mbégam ci lu gaaw korot ci loo soxla ak loo bëgg jëm ca la muy soxlaa ka bëgg mu faj say soxla moo tabe gaaw fajal ko soxla mu faj say soxla yépp fi saa faji na may gën a gaawub sox faji na ma gaaw xamal ni jàkk saxaarub ajjanaa ku ca jëm bu dee si nodd la paasam tëgg ñaani ca gaaw bu dee si nodd bàyyil loo jàpp dem ca te ñëw tardee di ay te saxaar ak waxtu ñoo gën a gaaw ñooyam dañuy gaaw a ñëw te gaawe wey duñu nekk kenn nit ku bëgg ñu bañ laaraw danga war a gaaw yow njaxlafal yaari njaxlaf yi ku bëgg ñu bañ laaraw dangay farlu njaxlaf yeewu jar te gaaw njaxlaf ku bëgg mu bañ laaraw danga war a sax ci fedd lig laxasaay ak it dëkk ci gaaw tisbaar ak ak gee subaa ki yii waxtu yépp wu ci ñëw yal na nuy ña ca gaaw nun yal na nuy waaja kay jëkk waxtu jot ba waxtu yi jot nu ànd ak yàlla soobu ca gaaw sun gan gu tedd ga ànd ak barke gontu na dem yal nan ko seerooti sargol kooti um kooti yal nay ñëw ak jàmm tey delloo ku yiw di nu baa ku yiw ba fekkati noo ku yiw nu kooti te yàlla na nuy teewe gépp ñëw gu muy xala ñëw tey fonk faw waka jox àqam di yokkooti yàllaa ko fonkulu ak yonnen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonnen ba naw kooti sëriñ bi daana ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu biir ak biti xam kooti ñu tedd ñépp ci daa farloo ka digle lu jub te daa ci bég leeke bég yi waa ngi roy koote moo tedd moo terle yombul day faxas mooy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj koote ni ràpp wunti lor ak jahannama nag ubbil la ajjana ngay jaamoo kasak koote te lépp loo ca dagaanit am ko am gu rafet boo jégguloo la nga daa tooñit ñu far koote du laf lu dul yërmande ku yiwu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay bégle cay kiiti sun gan ga moo gën a rëy mbir foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dalak nun tin ko faw ci nun nuy teewe ñëw gu mu ñëw sargal ko um kooti yàlla ni cas yërmandeem ak xiiwalam ni ma am yal naa ni cas mbégam ak cantam gu rëy ni ko am koo xam ni kii dafa xëy am yaari ngaaxe njariñ fa buumi canta ngërëm xaabaana jàpp na ndam xolam du tàng du tiitit ngir sëfam ba du joy jëm fenn moom du joy jëm fenn yal na nu xam nun ñépp yal na nu xam yi wépp wépp te wut koo wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njariñ di bawoo ku fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di bawoo fawit fu fi nun di ca jëm yal nay njariñ di bawoo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di bawoo fawit fi nun di ca jëm moo jàpp nga axi nga neelam sol boras ni casak ngërëm dugal ci sunuy kër boole noo ki dërëm moo sëf njariñ yépp biir ak biti sippi fi nun jébbal nu cëf këya yépp ak safiya faf nu xoram nun moonu xëy taxañal yoonam waxëy nu taxañ ni tegg benn ca dëkkub cant baa ki ngërëm moo teenu dox moonu paasal moonu teeji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yanaa di waayam juddul tàggoo ki mbég ba ñu xëy bis boole koo ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaa may jënam wu saxak mbég ci dexam ba ñu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yanaa di waayam ju seddu xol ju seddu yaram joo xam ni feng nañu tiisam wépp fam mu ayam yanaa di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram te bokkuñee ko ci gépp wet mu tiimi kemam yal naa di santam bu ñuy santoo ka sant ka gëm muy dolliku cant kay santoo ka sant ka gëm yal naa di kuuyam di ndaanaanam di mbër mu ko saf de ab dagam faw dib soppeem ak xaritam te saa su jot yal na fab ndolleen lu wér nu am nu dal nangu ni cas cantam gu wér ko am yow mii fasoo jot ci buur ak xol ba yal na nga am xel ak ngor ak yar bu baax ak ku fit buuray ka gën lépp moo jar lépp yal na la faf gënal sa jëmm ak sa ñépp ak loo ma soo na te yal na ngay fàtte yow mii lépp lëf lu la saf ngir sopp jëmmam jasuuxal lépp lëf lu rafet xarit bu ànd ak yow taw ñëw mu wàcc la daw bu dooni sox na mu def lay def du ngeen ji xarit koo xam ni kii day daw taw ëpp naa tegi sox kuk boy di dàq bu seenee gaynde dee su ko jot lu nekk gën xel mu des bum xel desee lu ne des bum xel ñëwee lépp ñëw xel yal na dikk te mat bu nit ñi dikkee fi yow day mel ni ñoo yami xel te niy garab di su nag la xel yamelit bu ñuy jëfit fi sa bët day mel ni ñoo yami jëf te xam ni saa yi ñu peesee jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moom nag te tuuti fi nit yàllaa rek la fa rëy nun ñépp yàlla nanu wat fa yàlla ñépp sunuy jëf wat fa jëfit géppug mayam gub laram daa moome ñépp aka not may googa yal na nu dund ak ndam ba taawu ko not walam gu daa jot gaayam yal na nuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoonit yal na nuy ñaca jot nu ñépp yal na nu ubbil wunti yiw yi mu am dugal nu caaki ngëneelam nuy sore tawat yal nay tawug lem ci nun goo xam ni gi ba banuy tàbbeeki mbég àjjanay firdaw si dootu sewet yal nay saxal yërmande kap xam-xamam ba ko saf ci nun te def nu ñu lor dul teg ci ñoomati bët yal nay saxal jëmmam ak jàmmam ju nekk ci nun tey lonki cant ki ndimmal sépp saa yépp yal nay ba jépp lor ak yépp tiisaku ay ñu bokk nuy teggi faw ak lépp luy taxaxat yal nay seral sunu xol ci soppe faw aki bañ seral ko guy yi ci dëkk ak gan saxal ko ci set yal nay gërëm lu nu wax yal nay gërëm lu nu def yal nay gërëm lu nu fas yal nay gërëm sunu xet yal nay saxal sunu xol bi ak sunu yaram yaramit ci guy yi yal nay tegit koo xam ne bañ nanu ngot yal nay mayum xet ku nu yéenew ayeeg ku jëw yal nay falet seeni dég nag ñuy rataxa di lewet yal nay teral faw kay teeroo ki canta ki mbég ñay wax ci nun jàmma kay def noorakum nawetit yal nay fabit ndabi mbég ak gaali canta ki ndam ci sépp saa di nu jox nuy nangu faw a kafat te yal na fab yërmande mag mbóotam ak njariñam jébbal nu boole ca mucc ak barke faw a firndaw si dëkk bu sedd xol la yal na ko mbër fa ba may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yal na fab jànnatul firdaw si ak njariñal addina jépp ngëneelam jox nu jox gunu bir njafal ga na mboolem say ngëneel a ngi ñëw yilee ngi lay nuyu yee ngay waaja ñëw te sawar yow sam na wet na say mbir jum na jag na yewen saajo yépp fajoondoo góomi tuuma ya fital nga ndam jam sa mboolem ci ya na xomas te saf na sàpp samay yaa ngi di wéy ni xasa say bañ toog nañu seenu cant nee na melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey ren jekkoo lañuy ñàddoo ke ren bu wér dundal te jekkoo sa mboolem bañ ñi faw ni gaa yey ren jekkoo la ñàddoo ka ren bu wér yow yàlla yal na la fenkul jépp waaju la bañ tegal la faw fi suuf ak wépp ay wu nar nga doole yal na la guufal tànki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jépp lorom ni lasar nga doole yal na la guufal tànki gaaya la bañ ñu bokk jooru fi suuf ak jépp lor ni lañar ka teg ca kaw asamaawam yépp yal na la teg ca kaw sa bañ yépp ak say soppe ak ña jur ka say tuwaame wasab xol sedd yal na ko fab jébbal la njébbal gu sab xol sedd sedd gu tar kayar ndamal gaayi biir ak biti yal na ko fab jébbal nu njébbal gu sedd xol te boole nu yor mboolam ya sedd sunub xol guy yal nañu nuy gungeeki mbég fii ba dugg ak nun yépp yal nañu ànd ak nun di wéy ba sarak ci àddina dugg ak nun ca àjjana far mbég yépp yal nañu ànd ak nun di wéy ba nun ñii ci àddina dugg ak nun ca àjjana far nu dëgg dàgga ju fëgg mukkati bis maa baale pepp mu dul jeex ak tiraanga ju bir ka bari laf mën a téye te tabe am mën a maye lor ju ne yal na ko téye yiw ne yal na ko maye ka bari laf mën a téye te tabe am a maye lor ju ne na ko téye yiw ne yal na ko maye ka lu daanu yal na nu tee ka xëpp ay mayam fu ne te may ca ña fa ne yal na nu xëppi may fu ne nuy sant kay bañ a tey ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam ña yor ko bu rafet yal na nu yor yor bu nu yor ko kenn bañ a bay ka mën a jàpp la nu neex jébbal nu njébbal ga nu neex yal na nu jébbal lu nu neex lépp te def nu ñu nay te mën a fal larab bu ne yal na nu fal barab bu ne notal nu waa barab bu ne jox na njariñ yi ci jay te mën a jébbal addinaam jéppub laram ak ajanaam yal na nu jébbal addinaam ak ajanaam ak tono yi te mën a benn sox junni bi kooba ni sërëx yal na nu téqal benn sox bu lare mboolem kooba yi te mën a woo ji mbégi yal na nu woo jël mbégi mbég yu dal di ñëw te bañ a teg te naka jàdd ka noy ka ñoddi ndami ndam yal na nu ñoddil ndami ndam ñu dal di ñëw te bañ a dem nu wér ni tax bañ a xoy ka fab ceebam nga neel jox nu ko faw ak barke yal na ko fab jox nu ko teel nu jël ci barkeb xej ji ka a fab nawet bu baax jox nu ko ci baaxam bu baax yàlla na ko fab jox nu bu baax ci mbégte dolli surga yi te yori surga yori tool yàlla na nu jox surgaa ki tool te tàggatal nu sunu tool mu màgg génne cant yi te surga noti tool yàlla na ni cas surgaa ki tool notal nu wullil nooti lool ñu jox nu mboolem denc yi te mën a dimbalib laram te mën a bayile ab laram yàlla nu dimbalee ngërëm bay leenu tooli yàlla yi te ndam ak ndimbali tool yàlla nu jox ndimbali tool yépp ak ndam yu màgg lool baykat yi ñeenu ba tey kamana dàkku ayu mbay yàlla nu dàkkul ayu mbay wépp te jox nu jàmmi mbay jëpp ak njariñ yi sotti kamana xëy fab àjjana yi firdaw si jox nu yàlla na xëy jox nu ko nuy sant ak way te naa ko yaa mën a maye kamana xëy fab àjjana yi firdew si jox nu yàlla na xëy jox nu ko nuy sant ka way te naa ko yaa mën a maye yal nañu jàpp Sénégal gépp a ngëneeli yépp dugal ci genn gaal te jox nu doomu googa gaal yal nañu jàpp senegal gépp a ngëneeli yépp dugal ci genn gaal te jox nu doomu googa gaal yal na nu dëkk ak yu ànd ak dërëm yu dul dog mukk ka jàdd yal na nu jaamu gu sell ak ju wóor ak mu ni modd yal na nu ku wérte lëkkoog ku cant lëkkoog ku way ni medd yal na nu reerew te gaañew te di ñëfandew ay lu medd yal na kay buur musal ci aw toor fawat ci doktoor ba du fi xand yal na nu not wat mboolem ña not wat not ñañu not wat ñépp ñu tëdd yal na nu not wat mboolem ña not wat not ñañu not wat ñépp ñu tëdd yal na nu xadd kaaba ga xadd jumaa ja xadd lu a xadd yal na nu raw lor faral lu koy jur am jàmm jur gu ñépp xedd yal na nu dëkk ngërëm yu ànd ak dërëm yu dul dog mukk ka jàdd yal na mu dëkk jaamu gu sell ak jàmm ju mu ni modd yal na nu lëkkoog ku wérte lëkkoog ku cant lëkkoog ku way medd yal na nu reerew te gaañaw yiw te di ñëfandew ay ak lu medd yal na nu kay buur musal ci aw fa wat ci doktoor ba du fi xamd yal na nu not wat mboolem ña not wat not nañu not wat ñépp ñu tëdd yal na nu not wat mboolem ña not wat not nañu not wat ñépp ñu tëdd yal na nu xadd kaaba ga xadd jumaa ja xadd lu a xadd yal na nu raw lor faral lu koy jur am jàmm jur gu ñépp xëdd yal na nu raw lor faral lu koy jur am jàmm jur gu ñépp xëdd yal na nu bind ba am ci mbind yiwuñu bind ak a ko bind yal nañu rëdd ba am ci rëdd ndam lu ñu rëdd ak a ko rëdd yal nañu dund ci yiw ba dund at yu ko masoona dund yal nañu jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yiw ak ndam ñay tëggi dënd yal nañu jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yiw ak ndam ñay tëggi dënd yal na nu taaru baraw ña taaru ñëpp te waaru baraw ña waaru yal na nu waare baraw ña waare te gaña na nu dis mbuur su dara ko baaru yal na nu dis mbuur su dara dul buur su sax ci way buur ñu di ko baaru képp ko am nguur yàllaa ko may nguur yàlla na nu may nguur gu sax gu taaru moo may ñoñam waar yàlla na nu may waar nun wu doy waar wu ndam taxaaru yàlla na nu may waar te ñam nu may waar bokk nu may waar wu ëmb dëeru yàlla nu may xiin wu ñuule niw xuun di xitti jëm ngoon taw ba ndakaaru yàlla nu xittil yàlla na nu dottil yàlla na nu sottil waame yu kaaru yal na nu baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan fab sori neeru yal na nu tallal yoxo ñu tallal nu ndam yu tallil xol yi wañaaru yal na nu xëy tuub waame yi xëy sóob nu déqi ndam boob waroomi jaaro yal na nu am ndam faw tawum ndam buy jur mbég ndam bu ñépp waaru sa cant war na ma guréy ngir yaa ma jox sang may gure yi yal naa la jox cantu gu yi goo sant yow cantu gure yi yal nan raw ña gërëm ñépp te raw ci sa ngërëm lu gën a rëy lépp lu rëy man yaa ma saf yal naa la saf sap nga saf yépp te am jox cant gu saf goo xam ne gii dana la saf nga jox ma sa cant gu saf goo xam ne saf na ma téere yal naa la jox la nga gërëm lépp nga fab la ma gërëm jox ma ko lépp ak sa ngërëm loo xam ne màgg na téere jox nga na ab añ ak liggéey yal na nu sax ci sab liggéey yaa war a jox nitub liggéey yaa koy jariñ njariñ lu rëy yal na nu sax ci sab liggéey te sant bég ci sab liggéey ngay jàpp kàttanu liggéey dinu jox ak doole ju réy may na ci ma bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labak aras ma tedd rëy may na ci sag tabe njariñ lu ñu dugal lépp njariñ lu nuy jariñ gépp jariñ fawaka yettono ju réy may na ci sag baax ak ci say xar baax may yu wér yu réy yu sedd xol bu ne te doy sëkk ña sew ñépp ak ñërëy jébal nu wërsëgu saxaar wépp lu wërsëgu saxaar wépp lab ak jëmmi saxaar yaa jox lu rëy ñam lu rëy yal na nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yal na nu doy loo am juróom doy gu wér jëkki juróom faw te gën sunuy moroom fakanu moom ak ñi mu moom yal na nu doy loo sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat doy loo nag sunub wér jëkk wopp ak yal na nu doy loo yit sunub dund bu wér jëkk sunub dee bu rafet sunu digg yàlla rafet nu bég baluum yal nu doy loo kan moom te li mu fab dénk nu moom doon nu sant ko ci moom moom it mu sant nu ci moom yal na sunu rafet fawwate sax sax gu rafet nu sax ci cant gu rafet ñu jox nu ñépp seeni koom yaa nanu gën ndaw ña ñu naw ñépp te gën mag ña ñu naw ñépp te ëpp leenu yiw sut leenu fan gën leena ndaw ñépp yal nañu nu nu ñee mboolem ña ñuy naw ak a ñee yal na nu jar lépp fa ñoom ke nekk cib loxoom yal na nu saytu ci loxoom faw te def nu ab loxoom jox nu la nekk cib loxoom ka ngërëmam gëni dërëm nun ñëpp yal na nu gërëm te jox nu xaalisum ngërëm bu kenn dul xamub dayoom ka mën a jàpp xol seral faw fi saa yal na seral sunuy yaram ak sunu xol faw fi saa sii kitonoom ka am lu gën fapub layoo te mën a musle cib layoo yal na nu may lu gën layoo nun te musal nu cib layoom ka yari xar baaxam yu baax te daa xaral gaayam ya baax na nu xotti lati baax jox nu ci suufi mbég ni xiim kasaytu ndam lépp a ku yiw yàlla nu may ndama ku yiw ba nuy bëgg a taxaw ca àjjanay sunu boroom kasaytu lépp ku yiw yàlla nu yiw ba bis ba nuy sunu boroom yàlla na fi wallu guy defaral xol ak gëm ni jasar fi saase boo leen defaral ndawal ñëwal ndab yu ñu sirip